asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñep di ziar ñep seen fel Abdou Karim Gueye euh, membre du mouvement Nittu deug ñëw rek pour def benn vidéo vidéo boo xamanteni euh vite fait rek bañ ko guddal euh, pour ñëw rek pour wax ci ñaari point yu gaaw na parce que dañ ci def ay éclaircissement parce que dañu toll fo xamanteni instant yi jog jóg dafa jot toga jeex motax may wax wa ànd sàmm Sonko yi nañ gëna taxaw et que ñu wax ni les portes sont ouvertes pour ñep nga xam bëgg nañ ci adhérer pour ñu gëna mëna euh, organiser affaire yi parce que commencé nañ déjà ci taxawaay bi ak préparation yi nga xam dañuy taxaw wan leen ni ñun luñu mom dañ koy sam ñaari point yi ma wax moy d'abord ci union des magistrats bi nga xam ne Chimère Diouf mo yoron sen cadeau man ma xam Chimère Diouf bu baaxa baax mu jugé ba taay sama kanam keroog waxna ko ci ben média mais dama ci bëgg bëgg indi ay éclaircissement wax aussi tamit ci li nga xamanteni moy euh li état du Sénégal di waajal euh, ci walu dossier Sonko Adji Sarr bi nga xamanteni ni ñëpp xam nañu moy lolu ci liñ sortie président Sonko lim def ak fan la ko teg ci wax yi nga xamni ne wax na ko point la ci jël bon damay ñëw d'abord ci Chimère Diouf kan moy Chimère Diouf Chimère Diouf ben juge la mu ngi nii mom mo wax ne mo mo taxaw ne manam nul n'est au-dessus de la loi seen yoy ni wax non te vraiment Macky Sall est au-dessus de la loi te deug deug deugantan wa Benno Bokk Yaakaar ils sont au-dessus de la loi te wax deug yalla Sénégal ñi ñu wara a teg ci yoon teguñ leen ci yoon réew mi ñi ko wara a defar ñoo parce que man mënu ma comprendre Chimère Diouf génn mu ne euh, président Sonko limu wax ne dossier bi kenn duma ma si tëj mën ma si até mais mënuñu ma si tej ñoom ñu ne loolu moo def ba tax ñoom ñu génn quoi moom mu génn pour wax kan mooy Chimère Diouf mi doon wax dama bëgg ngeen comprendre kan mooy Chimère Diouf mi doon wax Chimère Diouf mooy mooy juge bi nga xamante ni keroog ba ñu valider candidature Abdoulaye Wade xale yi di manifester ñun ñëpp ñu daje Colobane jóge fu nekk ci Sénégal Colobane fees dell ak nit nit ñi di jàppante ak policiers yi benn policier daanu ci ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ko wax Fodé Ndiaye lendemain bi une semaine après police dafa dugg yóbbu ko ñu koy dóor di ko dóor pour mu wax moom ñana àndoon ray xalé bi ko xamni yegul tinul ñu tejj ko torturer ko gañ ko gañu profond ba juge d'instruction bi bi mu koy entendre benn jour le gis ni xalé bi ngi dé xol ko gis xalé bi yaram yeb yëpp mu bind papier né xalé bi na dem ci médecin mu xol ko xalé bi né ci médecin mu xol ko médecin bi ne ko ki su dañ ko torturer dañ ko gañ dañ ko jam sax ay paaka dañ ko don tek xalé bi neen dañoo jël paaka diko tek ci sexe bi gañ nañ ko ci sax ba dag nañ sexe bi touti don ko tiital pour rek mu avouer lo xamni ne ko xale bi ne la man ray ma xawma ku ray mujj gi dafa dem ba bëgg pour bëgg ku dóor yi pour ñu bayiko da doon lim ay tour ay ami d'enfance sama ku ne mu wax la ñu jàpp ñoo ñëpp tecc ci kasso bi dossier bobu Chimère Diouf mi moko yoro Chimère Diouf mi mom mo taxaw àtte xale yoy ci expertise médicale bo xamné judiation euh médecin moko bind djebul ko judiation bi judiation bi djebul ko Chimère Diouf ñu xol ko xamné ki enquête sur torture la Chimère Diouf xol xol dossier bi xam ni xale bi dañ ko door torturé ko gaañ ko ñi ñu jàpp ñëpp enquête su torture la ngeen jàppee Chimère Diouf daal di tëj xale yi dix ans ferme jugé leen tëj leen dix ans ferme loolu Chimère Diouf moo ko def am ak yeneen boo demee nga tàppe dem leen ngeen tàppe Chimère Diouf juge Chimère Diouf ngeen xool ngeen xool magistrat bi ngeen xool dossier yi mu yor yëpp dossier yi mu yor yëpp ay dossier yoo xam Macky Sall lay liggéeyal état du Sénégal la Moussa ah. xam naa ne am na magistrat yu diñ nag seen tur yu gëm seen bopp yu am lu leen naqari ci réew mi ni muy doxee mais juste rek pour wax ni chimène Diouf mi du mom moy mom moy wax nul né au-dessus de la loi parce que xam nañ dafa far dafa fété te lool du cëram du wareefam wa lool mom lu ñuy wax la mu xam ko té ñun amuñu problème mu wax ko parce que dëgg alalu yàlla la fi kenn momu fi kenn wa lool toog ñu wax ko mu xam ko té Sénégal dafa am lo xam il faut ngeen comprendre ko té xam nga yapp Sénégalais yi weesul créer dossier bo xamni viol amu ci complot yalla wër leen lo xamni ne bo boo leen ko laalee yalla gën leen wër ngeen jël ko ba 14 personnes dee ci ngeen insister ngeen dem ñaan sëriñ bi ñu may leen ñun wacc ci mbedd bi jàkkaarloog yéen ngeen dem rey si 14 xale ñu ñaan leen ñun ne 14 xale yi na am sëriñ bi ñaan ñu ñu wax ko ne ko dañ ko jox suñu kàddu dañuy arrêté xeex bi mais fukki xale ak ñeent yi dee na yoon def liggéeyam ñu xam ñan ñoo leen rey ndax ñun yoruñu fetal yoruñu dara policiers yi leen rey ñu jàpp leen defuñu ci dara ñi ñu jàppoon tëj ci kaso bi ñu bàyyi leen sans condition ba léegi ñoom ñu ngi topp xale yi ñi ngi topp Guy Marius Sagna sax ñi ngi topp Clédor ñi ngi topp Assane Diouf parce que gis nañ ni juge procureur bu bees bi ñu fal ni dafa dafa ñëkkaat ci dossier boobu noonu Chimère Diouf mii sax dossier Imam Ndao bu bërki démb bii ci loxoom lañ ko tegaat en fait c'est eux qui font bi ñuy woote fii di def appel bërki démb bi ñuy woote Chimère Diouf moo yor dossier bi moo nekkoon ci tribunal bi quoi ne dafay nekk pour tontu ñu ñun naan day tontu réseaux sociaux yi quoi di wax naan ay daan Imam Alioune Badara Ndao di di xam nga dañoo fàtte dañuy fàtte yàlla que les Sénégalais dañ leen mais ils ni réew le peuple est souverain les askan pas mënu ils ñëpp nañu Ils ne ci point ci point complot encore yàlla weeraat leen président comprendre accélérer cadence bi jitu leen ci affaire yi ne sont pas sénégalais ñu xam ñu dem ci internationale bi pour wan tuba bi ne ñu complot ak France pour dimbali ci presse internationale bi mu duggal ci bop tuba bi ne Ousmane violeur la victime la instant yi dañ ko jekku Sénégal dafa kii dafa nangam nangam nangam nangam loolu yëpp dañ ko def juste pour tubaab yi mën a am benn ñewantal ak mën leen seetaan il faut ngeen xam ni ay ñoom ñoo wax force occulte am ay ministère militaire français d' origine sénégalais yoo xam ni ñi ngi ci dëkk bi fii civilu fees fi dell ay noir yoo xam dañoo ñëw ñi ngi ci dëkk bi xam leen ko nag ngeen bàyyi ko xel moo tax may wax moo tax man li ñuy wax ñun dañ ko xam ñun waxantuwuñu dama ni sa Sonko bi laay waxal ñu ngi woo bépp doomu Sénégal bu pare pour sauver Sénégal pour libérer ko ñu ànd ñun ñun si waxtaan ci taxawaay ak ci dëgër ci mën leen ñu xam bu baax ne ñun du leen seetaan ñuy sànq suñu projet bi nga xamante ni mooy libérer Sénégal saa bu ñu ko amee ñàkk ko saa bu ñu ko amee am nañ ko ci Mamadou Dia ñàkk ko am nañ ko ci euh, Cheikh Anta Diop ñàkk ko am nañ ko ci Thomas Sankara ñàkk ko bi yoon duñ duñ ko ñàkk ci seen ñoom seen intérêt crypto personnel ñoom bëgg na ay esclave esclave salon esclave maison toog rek ne dañuy topp ci tubaab mu noot ñu rek loolu c'est fini c'est révolu jeex na léegi nu mu jeexee mooy na Sénégal yëpp xam sama ñoom yaay nañ ko xam na ko sëriñ si xam na ko na ko borom daara yi xam na ko ñëpp xam que ñun lépp lu ñu sëriñ bi laajoon def nañ ko que ñun lépp lu ñu waroon def nañ ko suñu diggante ak sëriñ bi respecté lépp loo xam mooy bàyyi dellu ginnaaw bi que moom Macky Sall respecté wu ci dara ba léegi nii xale yi dee kenn xamul ka moo leen rey ba léegi nii xale yi dee kenn xamul ka moo leen rey te policiers yi dal seen kaw gendarmerie dal seen kaw moom ay nit yu jaxasoo seen biir ba léegi nii ñi ngi topp ñoom Guy Marius Sagna seen ngi leen topp ba léegi nii ba léegi Macky Sall xamuñu ndax def parce que taxul li waxanté won ak sëriñ bi sëriñ bi waxnako né ko mu jël bu wax carrément def troisième mandat ou pas donc yooyu yëpp xew fi ñun ñu nangu ko croiser le bras di sétal légui nak mu jugat encore yabat ñu di yéssalat dossier bobu nan du ko yëkkatiwaat pour arrêter président Sonko parce que élection yaa ngi ñëw parce que xam 2 ans mo ci des parce que parce que parce que parce que parce que légui nak note bis Macky Sall note askan wi ngir jagleel ko France def ñu bu mu njaam yeew ñu bu ñu ko fu yobbu mané lool ku ko nangu nak mané ku ko nangu ya xam ñun duñ ko nangu légui nak président Ousmane Sonko duñu duñu ëpp fulla mënul taxaw wax carrément ne mom amul lobby ci ginnaawam amul kenn ku nekk ci ginnaawam ku dul le peuple sénégalais té limu porter moy li libérer Sénégal tak li ñoo ko ay français CFA ay 10 ci ressources naturelles yi ay ay ay ay nooteel boo xam Macky Sall daf ñu bëgg noot yemale ko ci ay domum ay kiyam ak français ñom ñu nekk fi agrippé wu ci pouvoir ñun ñun ñu tok melni ay dof man kenn duma gëna goré ñun kenn duñu gëna goré a gore looloo tax na ñu créé yi taxawaay ñu taxaw ni pour gëna a éclaircir moo may def vidéo bi nii benn par benn donc leer vidéo yi nak jeexagul li ñu wax bari na mais xajul ci benn vidéo parce que man bëgguma ay vidéo yu gudd donc li ma bëgg rek moy ñu xamni ni ñi ngi préparé wu mais ñun préparé wu nañ ba paré té lu ngeen ci bax ñu ñaar ko té lu ngeen def ñun taxaw nañ pour wax leen li ngeen def ni nañ ko dindi benn par benn ba mu set parce que euh, bët bu rusul day toj lepp lu bon ci lu ñaaw def ngeen ko lepp lu bon ci lu ñaaw def ngeen ko vous êtes des criminels li ngeen def mo gën bon li ngeen def mo gën ñaaw te amul lan lo xam mëng nga top président Sonko lu leer lu concret lu nit mëna gis tegu leen ko fenn lépp seen ay ay seen intérêt ak seen i fexe nu ngeen di naxi askan wi te askan wi yeewu nañu yeewu nañu te ñun bu ñu jugee di ngeen xam ne lépp dëgg te sëriñ du ñu delloo ginnaaw kenn du ñu delloo ginnaaw gendarmerie ñu delloo ginaaw police mënuñu delloo ginnaaw dara duñu delloo ginnaaw peuple Sénégal bi dinañ jug pour sàmm suñu kaaraange ñun pour sàmm suñu projet bi nga xamante ni moom la Ousmane ko porté parce que da ngeen wane seen bopp carrément yéen ba mu kon dañuy ñëw libérer assemblée nationale libérer justice bi

juge am yoo ay justice bi am ci ñoo xamanteni ci poosam daf leen def ci poosam ci poosam xaj dem ci assemblée bi am fa ay yo xamni même chose amuñu benn gis ngeen ni ñu def bu ñu waré lever immunité parlementaire u président Ousmane Sonko gis ngeen ni ñuy def ak yeneen ak yeneen te nanguwuñ sax criminaliser góor jigéen nanguwuñ def dara ne loi yi sax du yegg plénière ñun mënuñu gëm dara nit ñu fekk suñu gëm lañu ko ba noppi diñu jappalé ci xex bi ñu and ak mom di xex ngeen ñu noonu du fi amee wékku ci gendarmerie police ak armée bi ñun duñ ko nangu duñ ko nangu ndax ñi fi nekk ñëpp yéen ñun ngeen fi nekkal ñu nekk ci armée bi yëpp ñun lañ fi nekkal ñu nekk ci police bi justice bi ñun ngeen fi nekkal te loolu dañ leen ko wan incha allahu rabbi fekkee da ngeen bëgg waññaar suñu loxo ne da ngeen tëj suñu euh, euh, président Ousmane bi nga xamante ni moom moo yanu suñu projet maa ngi leen jégalu di leen baalu ak euh, di wax ne di ñu defaat yeneen vidéo ak yeneen éclaircissement ci li nekk suñu kanam salaamaaleykum adduna bu ñu nekk nii rafet na bépp xeetu rafet ak ay garabam yu verte géejam bu yaatu mala yi siy dund ak yeneen ak yeneen yu bari waye bu wessu lolou yep aduna bi dafa yore tam benen kanam benen kanam bu bokk lak rafet ndax ci aduna la feebar am wasin bu metti soxorante yakalaté digeyenté ak yenen ak yenen yu doy war wa yalla mi aduna bi ba pare wàcce ñu ci xamoon lolou yep lolou tax mu wàccee ay ñaan ci aduna bu nit ñi di ci faju di si ñew waye ñaan yoyu di ñep ñoo xam ñukay xam dañuy tarbiyu ay at di jang te sëriñ Babacar Ndiaye bokk na ci ñooñu ak sëriñ Babacar Ndiaye mo xam muy tële néew kàttan mën na ko traiter ci 45 jours nga yëgaat sa bopp wala boog mu jolla si garabu jooni jooni yi nga essayé ko gis ci sa bopp jigen bu ëmb tamit bëgg am doom si anam bu sedd te du metti du jafé sëriñ Babacar Ndiaye amna ci ay garab yu baaxa baax li di ndoxum sidi tamit hémorroïde interne ak externe faru rap coro rab xale buy lekk suuf te mënu ko bàyyi xale buy jooy rek tout le temps ñaan bu lay ubbi wërsëg nga am alal bu bari ak yeneen ak yeneen yu bari wool Serigne Babacar njaay mu jàppale la si si numéro bii di 77 453 52 94 wala 70 881 29 81 wala boog si 78 611 78 31 ak Serigne Babacar Ndiaye alxuraan sa aju dina faju si bu neexee yàlla.